jërëjëf xalaat yi yëpp it maa ngi ci. dafa am fu mu leen di nekk nag. Mm-hmm. lii sax daanaka mën na mën mën na ko mën na koo doon. Mm-hmm. yónnee naa ci. Mm-hmm. nañ bàyyi ba xam. nu ñuy def nu ñuy àtte. foofu moom mën naa doon tàmbale. te lu mel noonu laa doon nekk. loolu lii yàgg naa ko xalaat bu yàgg. yàgg naa ko xalaat bu yàgg ndax euh, suñu daje mu rëy ma ñu fi defoon Touba. ba suñu Abdou Aziz. Touré boo waxee lu ko wax. naa ko tey jii waxtaan bi sax dégg <laughs> ci man ba léegi. boobu ba tiit maa ngi ci. waaye dafa am bu ma leen dégg rek. nit gi nag loo mën na mën na mën naa bañ mën naa bañ a ndax maa ngi leen déglu ci àtte boobu. bu ñu àttee ba noppi. Mm-hmm. danaa xam ne. alhamdulilah alhamdulilah. xalaat ji maa ngi ci woon. Mm-hmm. muy xalaat ji. Mm-hmm. danaa seet. Mm-hmm. na ko ànd ak bokk yi. jullit yi fi ne bokk kilifa diine yi fi nekk. ñu waxtaan. wax leen bëgg. wax leen bañ. wax nos ko. loolu foofu rek la ñu ndax mbirum mbirum réew la. du mbirum moo xam ne dañuy wax rek mbirum réew la. mbirum doxinu réew la.